waaw salaamaaleykum mbokku ami internet comme niñ leen koy deflee tunga ne du teew ñuy nataal ki nga xamante ni moom la Dof Ndeye def jëf ji moom la ñu jàkkaarloon ni yombul woon ñu ñu am ko mais waa kër gi jàppandal na ñu lépp ba ñu mën ko am ñu ngi lay nuyu ko maa ngi fi man maa ngi tudd Maodo dëkk xar yàlla yaa ci jàmm maa si jàmm bu baax kay mais tey boo doon ñëwaatal ci li nga xamante ni moom la la sa waay def loolu ñu ciy wax lu mu demee woon ah histoire bi loolu histoire ak sama benn xaaj bu may toogal mhm. léegi muy histoire ak moom léegi ba yaayu booy bi ba yaayu booy bi nekk foofu di kii di wax ak booy bi jël xeer nar ko dóor booy bi léegi ma ñëw tee yaayu booy bi wax moom léegi si la moom fekk mu ngi toog noonu si ginnaaw booy bi léegi si la fekk si la yor paaka bi léegi si la yor paaka bi nar a kii booy bi après booy bi si la ko kii nii si lañ si la daanu si la ñoom ñaar ñu daanu après si la jam booy bi léegi ñu kii ñu ñu tourné booy tàmbaleen sànni sànni ko ay xeer ba mu ba mu dem léegi mu bàyyi ba ay ay deux yooyu mu ñëw sam siñ kër fëgg après si la sam papa ibi tàmbale naan man ci laa bokk tàmbale di saaga sam papa saaga ko saaga yu métti léegi ñu xëy suba ay ay huit yooyu si la si la ñëw siñ kër si la ñëw fii këŋ-këŋ fëgg ñu ibilaat ko fekk ma may nelaw léegi ba may nelaw ma jug génn mu tàmbale di saagat ñëw taxaw fii di wax lu mu wax ma ne waaw mu wax ma ne waaw ndax xam naa ne bokk ma si mag dama ñëwante atte rek lu mu wax ma ne waaw mu saaga saaga ba sonn ma ne ko waaw rek waaw léegi si la wax bay waaja dem léegi ba muy waaj a dem si la génnee paaka bi ma tourné rek si la jëm paaka bi jàmm ma dugg si néeg bi génn rek deret fekk dafa bëri lu doon génn dafa bëri quoi léegi après ma génn ci mbedd bi gars si lañ koy benn oto si laa yegg si oto bi ñu yóbbu ma kii nii ma yóbbee hôpital mais Dof Ndeye fii la am concert lu mu am Dof Ndeye man dama daan bàyyi sax sama liggéey dem si moom. ndax lan daf lay dama ko jaral tey dégg naa sàng laa doon seetaan benn kii nii benn vidéo mu naan waa Ousmane Sonko moo ñu yónni waa Sonko yónni ñu maag booy bi fii lañ dëkk xaar yàlla moom Dof Ndeye moo ñu ñaari kër yi benn fii rek la dëkk mu ñëw tey mu naan waa Ousmane Sonko moo ñu yónni maag booy bi mu ñëw naan ay dama laaj Zarko ndax Zarko sama mag la fii kër gi fii la suñu maam yi ñoo bokk maag Zarko mu ñëw naan dam waa Ousmane Sonko moo ñoo yónni booy ñaari booy ma ñëw xoola booy bi nu ma ko def yàq naa kanam bi dem fee fii rek la dem si ginnaaw fii naan booy bi yàq naa kanam bi këram laa wax fekk saaga papaam saaga yaayam jamate ko dem génn ba ma jamee dafa génn dem nag dem sama ginnaaw kër maam naan xool demal kër gi rey naa fa nit loolu waxu nit la loolu du waxu nit moo warul ñëw fii di jam ñëw fii lu mu am ma dem moom mu ñëw tey di ma fay lii di jël ay paax di ma ko jam fu ma génn gars yi naan ma bandi nga foo ma ji di ma di ma dëkkaloo foo xam ne dëkkoo fi loolu du yoon Dame Nday warul def loolu mu ñëw tey di foogoo moom bandi la di di génn ci mbedd bi di saaga nit ñi loolu waru ko def magum jëm du def loolu moom dafa war a xam ni fi ñu toll nii moom dafa war a lijjanti leneen ay laay fu bandi amul solo moom loolu nag la bëgg dund ay laay fu moom dafa war a xool fu muy amee xaalis mais warul nekk fii di xool ay man bandi laa di jam nit moom bu ko defal moroomam sax garaawul fii la policiers yi ñëw fii ñun ñoo ko may fit ñëw taxaw xeex ak ñoom tëbal policiers yi ñu dem ndax lan ñun ñoo moom daf ñu ko jaral tëgg concert lu mu tëgg ñun du mu kii kii ñu bàyyi suñu liggéey ñëw tey doom day ñëw di ma fayee lii su ma génnee gars yi naan ma bandi nga bandi ndax mooy fayee jëf li bon ji naan ma ay samay xeexal sama kii nga siy dugg ma ne ko man dugg ma si dama doon àtte rek dama rek loolu rek laa ko wax mu ñëw di jël ay paaxa di ma ko génnee di ma jam ah, kon moom dafa yaakaar ni da doon sotal sa waa ji ah, dafa yaakaar dama doon sot te man sotuma dama doon suma ma ko atte woon moom day moom mun a jam booy feneen mu dee mhm. mun na ko jam feneen mu dee mhm. ndax ñëw nañu ate suñu atte woon lii mun na mujj feneen ndax jam na booy bi jam ko ay jam si kii si ginnaaw mhm. mais su ma atte woon mun na demee neneen mun na ko jam feneen mu kii waaw léegi mu ñëw tey di ko rëccu li ma woo saaga démb doon na ma woo faale wu ma ko ndax lan lu ma def damaa métti ñoo di saaga sama papa di saaga sama yaay loolu du yëfu nit du yëfu nit ci ci ci ci loo xamante ni matul 24 heures wala boog 48 heures mu jam ki nga xamante ni sa xarit la ci bi nga ko doon àtte ci ci lendemain bi wala boog ci guddi gi moom mu ñëw tam def la jëf ji. waaw guddi gi si la ñëw saaga sama papa. saaga ko saaga yu métti sama papa ne waaw na instant mu ngi yor arme bu yoree arme da koy sóoraale. dëgg la mais mu saaga ko saaga yu métti dem na suba su ma ñëwee dinaa jam Maodo force. ñu xëy suba ay moom moom sax moom sax lu muy def ñemewu ko. bandi dëgg looy dooy def da nga koy ñeme. ñëw fa ay 8 heures heure boo xam ne ñëpp ngi nelaw ñu fekk ma yi ma yee bu fekkoon bu fekkoon fekkoon ay ay bu baan ay yenn heures yi nii fii ba soo moom mënalu ma dara billaaxi mais ay 8 la ma fekk may nelaw mu yee ma heure boobu man kii ma woon sax ndax fat sama xel génnoon na sax si affaire yi mu ñëw yee ma ba ma yee si laa jug sama sax moo ma yee ma mu ne mu wuyul mu toog ci bunt bi saaga nday am na ñeneen ay garant fii mais ñooñ dañ ko ñemewul kenn ñemewu ko si léegi moom bu gisee booy ndaw yi di ko kii day naan kon man ñi yab grand yi man yabuñu ma booy ndaw yi bëgg ma yab loolu mënul ne du ma ko seetaan léegi si la ñëw génnee arme bi man gisuma ko sax si la ma may wax mu mu génn toog ci mbedd bi dem wër naan rey naa nit rey naa nit laa génn dem jël kii dem. waaw parce que yaakaaroon na ni waaw rey na ndax affaire yi dafa garaaw. waaw deret bi nu mu génnee ak deret nu mu doon génnee dafa jam dafa jam jamaar rek deret bi sànni. ba mu sànnee si la rey naa nit rey naa mu génn naan rey naa nit rey naa nit ko yow munoo ma rey yow doo bandi ndax bandi dëgg du jam nit ba pare di daw loolu laa ko wax loolu instant moom mooy moom moo koy siisuloo doo bandi loolu laa koy wax muy mer doo bandi démb mu woo ma faalewu ma ko ndax lan lu ma def moom moo métti jël ay paax ñëw fekk ma ba suñu kër dama dama jam parce que jamono yi si ginnaaw ñu gis benn muy wax naan na na jeunes yi bàyyi yoonu bànn yi na jeunes yi nekk seen liggéey na jeunes yi nekk ci li nga xamante ni mooy yoon bi jub bi tey ñu gis ko mu def jëf ji kon vidéo boobu nga xamante ne waxoon na ko kàddoom yooyu ak jëfi tay bi yow tey nan nga mën a interpréter ji nga xamante ne def na ko ak li nga xamante ne moom moom lay woote. waaw di wax jeunes yi dem leen liggéey léegi moom jeunes yi bu gisee ñu gisee vidéo bi ñu mu ñëw si kër jaamu jam nit kon ñoon ni ñuy def day naan kon kii lu muy wax ak lu muy def bokkul te loolu la sax lu muy wax ak lu muy def bokkul ñëw fekk nit si këram jam ko loolu du yoon te police boo ko yóbbu police grand boo ko yóbbee dégg naa commissaire bi ñemew ko commissaire Mbaalo dégg naa ñemew ko da ragal loolu moo tax léegi boo ko yóbbee foofu nga kii ko nga porté ko plainte gars yi day naan du day naan waaw day naan dof la te dof dof nan lay mën a fekkee nit si këram jam ko loolu gars yi si war a wax mu ñëw fekk nit si këram jam ko indi ma problème instant bi may jël sama xaalis di si def di def xaalis bu bëri di dem faju yi loolu du yoon tam warul def lii mais après lii nga xamante ni am na moom rëccu na ko wala boog nu ko def moom rëccu na ko rëccu na ko na fii ay magi mag pour ñu ñëw pour baalu muy jégalu mais man dama dem ba nga xamante ni instant bi nee naa ko man mën naa la baal de mais damay xam man su ma la rombee du ma wax ak yow dama bàyyi wax ak yow àdduna àlaaxira su ma la gisee man pare naa si yow mais mun naa la jégal tamit mu naa la jégal mais yegul sama xol quoi ndax lu ma def dafa ma métti ñëw ba suñ kër di ma jàmm loolu laa ko wax loolu dafa ma ñëw suñ kër jàmm génn naan ma rey naa nit kii dafa ndaw pour pour pour pour jàmm ma dee billaahi mu doon ay kàddu yu daw yaram yoo xamante ni gis ngeen ni mu ko waxee waaw bu fekkee am na leneen loo bëgg jàllale lu ñu luñ la laajul balaa ñëw yëkkati jotaay bi nga jàllale ko. ah waaw man kay loolu rek laa doon wax kay. waaw kon encore une fois dañ lay ñaanal yàlla may la wér. waaw lii yàlla bu mu fi amati parce que comme ni ñu ko waxee rek boobu ba léegi lii lu lu kenn mënul rafetlu la lu kenn mënul waaw mënul kenn mënu ko interpréter nenn lu dul lu ñaaw la parce que récemment gis nañu moom mi nga xamante ne moom mooy dox nday def benn sortie wax ci jeunes yi ne jeunes yi dañoo war a tegu ci ci la droit chemin jeunes yi dañoo war a bàyyi li nga xamante ne moom mooy banditisme jeunes yi dañoo war a bàyyi tux dañoo war a bàyyi naan dañoo war a bàyyi salteel comme ni mu koy waxee kon tey bu fekkee gis nañu jëf ji nga xamante ne moom jëf na ko ah xamuñu nag ni bi mu koy def ànd nag sagam ou pas mais lu ci mënta am nekk na loo xamante ni kenn mënu ko rafetlu donc yow ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi ñu may ñu mën a jàkkaarloo ak yow waxtaan ak yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci loolu kon gars ñu yëkkati fii kàddu gi di leen jox ni ba beneen yoon incha allah yaa ngeen jëf voilà salaamaaleykum mbokk ami internetu univers info Live SN ak nga xamante ne ñooy Big Pro Media comme niñ leen ko waxee ñu ki sànq nga xamante ne information bi lépp ci suba mi ngi daw ñu gis ko suñuy naataango yu bëri ñoo xamante commencé nañ ko relaté ñu ñëw fi nga xamante ne fi la mooy xar yàlla ñu jàkkaarloo ki nga xamante moom mooy yaayu xale bi nga xamante ne moom la dof ndey ah, jàmpaaka bi mais balaa ñëw dugg ci waxtaan bi ñu nuyu ko maman ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. man la Ndeye Ndiaye laa tudd. waaw. maman tey boo ñu doon ñëwaatal ci li nga xamante ni mooy jëf ji am lan nga ñuy wax ci loolu man de ba léegi affaire yi man ba parce que man dama xamul affaire yi affaire yi jàmm man ma ko déggee sax sama fit bi du dal depuis boobu ba léegi moo woor nii ba léegi mun ma fexe pour ma ndogu sax problème la ba léegi affaire bi koy imaginer dama ñëw keroog fekk man fekkuma fi dama dama jéem dégg yuux yi ñu ne de kii mooy xeex dof nday ak benn rakkam léegi après ne si laa taxaw noonu nag may ne eh, après si laa gis kii nday balde noonu di ñëw mu kii xam naa affaire yi jàpp ko man xam naa tension bi moo yéeg léegi ñu ne doom ji mooy xeex ak kii léegi man ba léegi xaw ma woon ni sax sama doom bi moom si xeex bi la bokk après ne nekkate moom tam ñu ngi ko téye koñ bële mhm. ñu ne si xeex bi la bokk moom tamit léegi si lañ ko ñëwee indi affaire yooyu léegi après si lañ ne moom dafa am ñan ñoo ko ni moom si xeex Maodo si xeex bi la bokk mhm. léegi après ñun ñu tëdd ba ay 2 heures du matin si la ñëw fëgg kër gi di après muy saaga yooyu di saaga papam léegi papam mu ne loo wax rek jërëjëf parce que ñu fii yow man maa la yar parce que tamit am na loo xam ne diggante ñaari kër yi lu lu ñaaw xaju fi daal waaye comme sa xol foofu la toll rek loo wax rek jërëjëf mu saaga après ba doyal mu dem léegi mu ne nag dinaa ñëw te sa doom dinaa ko jam ma xëyee suba si nag bu ma yeewoo noonu avant may dem marché maa ngi koy wax sama doom bu ndaw maa ngi ko xam naa Maodo su ma su ma jógee marché naa ko ne bu mu génn parce que kii ne woon na dina ñëw te dina ko jam après si laa tasee sama doom bu bu ndaw bi yoon filaaw ma jóge marché ma koy ne ana Maodo mbaa génnul mu ne ma Maodo de jam nañ ko ma ne ko si suba baa may dem marché maa ngi koy wax maam maa ngi ko naan Maodo de naa ko ne bu mu génn parce que ñëwoon na fi dem te neen dina ko jam weeboo nag mu moytu tey bu mu génn nekkate moom après man bi ma demee marché si la ñëw fekk si néeg bi après papa yee ko fekk da doon nelaw papam yee ko après si lañ ko arrangé ñun ñu ñuy wax arrangé wax waxtaan ak moom daal après moom mu wax ne am na fii laa yaroo daal si kër gi comme ñaari kër yëpp benn la mu ne am na fii laa yaroo affaire yooyu bàyyi naa affaire yi mu sedd xam naa dégg naa mu génnaat ba si mbedd bi xam naa mu mënu ko muñ après si la ñëwee jël paaka bi après si la ko jamee ñaari jam-jam après ñu daal di koy jël yóbbu ko fële sami papam ak benn xaritam yóbbu ko sami si lañ ko ñaw noonu après kii ko def kii ko mu mu doon lu ñaaw mu doon loo xamante ni nit mënu ko rafetlu donte sax fii la yaroo jege yantoo nañu mais mënu mënu kenn mënu ko rafetlu daal mais loolu bi mu amee xanaa dafa fekkoon ñoom ñaar yomal problème bu yàgg ba mu tax mu def lii tey. déedéet mosuñu am problème mosuñu am problème man sama moom sax sama doom bi mu nu ko noonu sax. miinu ko noonu waaye affaire lu mu mënti def si lay nekk depuis 8 marsam bi sax. toog na 3 jour 4 jours nanguwul liggéey mi ngi si affaire am yi ñu ngi si yóbbu jëlee ay 16 indi di defar. chaque jour su ma ko nee dama xëy mu ngi si affaire yi di kii nekk si moom si ay affaire am yëpp nekk si tamit xam naa tamit ay na foofu la xolam toll rek waaye ñii ay ay doomam lañu balaa mu doon kii mënoon na xalaat bu baax parce que tamit chaque jour lu muy kii xale yi nekk si même dem na def concert mbuur ñoom ñëpp demoon jël seen oto dem kon nag balaa mu doon di kii mënoon na xalaat tamit parce ñaari kër yi tamit lu ñaaw xaju fi xam nga seen waa kër yi ñëpp ñëw nañ fi di baalu wala leen amul benn solo parce que àdduna amul solo waaye tamit muy muy muy xalaat daal xam ne xale yi ay doomam lañu parce que chaque ñu ngi ci ginnaawam parce que lu ñaaw xaju fi daal xaju fi. waaw lu ñaaw xaju fi parce que récemment lu yàggul dara gis nañ ko mu def benn interview di conseiller jeunes yi di conseiller xale yi naan leen yoonu yoonu banditisme amul amul amul rendement yoonu banditisme du yoon bu baax yoonu banditisme na xale yi nangu liggéey na xale yi xam ni ci yi ñu nekk ay toxu kenn naan loolu jëmul kër tey kon bu ñu gisee li nga xamante ne moom mi ngi ko doon wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi tey moom mu ñëw def jëf ji dinañu choqué dinañu dinañu jaaxal daal. waaw dinañu jaaxal kay wax dëgg yàlla dinañu jaaxal parce que moom tamit comme moom mu ñu conseillé yooyu xale yi tey mu ñëw di def lii tamit ñu affaire yi dinañu jaaxal trop na mm-hmm. jaaxal nañu wax dëgg yàlla jaaxal nañ waaye nag ah ñu bàyyi yëpp suñu borom. bàyyi yëpp yàlla yàlla baax na. waaw que sànq ñu ngi dégg ñu naan am na xale bu mu ko def après kii moo nekk deuxième xale bi mu nekk ñaari nit yoo xamante ne def na ko ci en tant que Dof loolu en tant que yaay boo fekkoon da nga ko ciy loo koy wax. Ah, loolu xam ne rek xale yi ay ay rakkam lañu ay doomam lañu tamit lu mu munti tëdd demee tamit mënoon na di xalaat xalaat waroon na xalaat bu baax te xam ne tamit ñoom ñoo bokk xar yàlla mm-hmm. te xare yi ay doomam lañu nu mu munti tamit mer mer mer waroon na sóoraale lu bari lu te xam ni fii mu lu mu def nii sama doom tamit fii këram la xam nga te yëpp ñun ñëpp ay mbokk lañu tamit mu doon na xalaatam bu baax waaye tamit xay na foofu la xolam toll waaye tamit waroon na xalaat loolu daal laa am lu ma siy wax après loolu yéen maanaam ban matuwaay ngeen jël da nga ko bëgg a teg ci yoon wala da ngeen bëgg a mu sedd nu ngeen di def yéen xam bi papam daf ne woon rek nañ ko bàyyi mu sedd daal mhm. papam loolu la wax parce que comme affaire yi mm, mm, ay yëpp la daal mhm. papam mu ne nañ bàyyi yëpp mu sedd mhm. loolu la wax papam loolu la wax waaw bu fekkee am na leneen loo bëgg jàllale lu ñu la laajul balaa ñoo yeewi jotaay bi loolu laa am lu ma siy wax kon encore une fois dañ lay masowuwaat di ñaanal ki nga xamante ni moom la jëf ji daal yàlla na koy yàlla may wér te lii yàlla bu mu fi amati waaw donte mënul nekk loo xamante nii lu kenn di rafetlu la mm. comme ni ma ko waxee woon suñu njëlbeenu kàddu kon ñu ngi leen di masowaat encore une fois te di leen wax ni ñu ngi leen di ci euh, li ngeen ñu may ñu mën a waxtaan ak yéen bu baax jërë ngeen jëf merci. bi lay dox nii te ne ndey sama bopp ci mbedd ma si wax dof ndey nii ma tëj wàcc taxi bi dëkk sa ndey ay semaine ba nga dee Macky moo fi kat ta ma nekk seen jàppa ndey bu ma si wax déedéet damay wax taximaan bi may ma mu may ma ma tëkk sa ndeyay semin ba nga dee xoolal sama kër lay tàmbalee di yëngal jaar nday fii mooy fan kat ta nday zone capitale bi wër nday fépp koo kenn du kat sa ndey taxaw na ma dof de é eh, dafa yaa nga si téléphone rek ku wax ma dëgg sa ndey bi lay dox dene nday sama bopp